cey <laughs> kooru waaju C'est seen j'adore Patisen ak Vitale ñoo leen di may kooru baral. baax nokkos marine Dorel, safal Sapali.

Doli, yow li ma la defal naana googu eh, dollil ko lii dafa baax ci yaxi xale dollil ko xam nga joma. la jomma kii nga xam ni kër gu mu dugg ñaan fa jabar ñu may ko ko kii mooy lait stérilisé caramélisé xaritu xale yaa ngi nii ak mag ñi jëm ba jekk na liggéey ba sell na neex na am fraise am na wane li ñëpp doon xaar yegsi na nee naa leen ah. dama na lait stérilisé ah. karamelise terwirantetu ko nga yow ya daal koor gi ni nga ko nar man mayoo ma dara sama góor a ma ñawal kase ma ñawal lii waa xanaa di nga ko wax mu ñawal ma nag waaw naa la yóbbu sàndaga ci palaasam mu ñawal la kase moom li muy ñaw baax na moom li mu dafa rafet moom léegi nag bëggoon naa ñu waxtaan bi loolu jàllee waaw sa xarit yi ak sa bu ma wax seen wax lu tax duma leen wax seen wax ñu dañu ñew ci kër gi neena tok sa jëkkër di sekkat ni da amé tuberculose bañu daw mu dàq leen ba ca buntu kër ke lo rafet na. yaay man histoire bobu sax man faté won nako wax ji loolu yeb méttiw ma li ma si gën a ma dem ba fofu di wax ak ñoom di leen laaj lutax ñu dem tàgguwuñ ma bañuy dem ak lima leen préparé woon yeb nu naan ma dédé dañoo ñëw sa jëkkër di sëkkër tuberculose xawma ma lan ak lan ak lan te. Ah, kon kay wax ji deug la lima la wax kon deug la sa jëkkër yow dafa siis. ah sa jëkkër loolu war na ko def loolu rafet na say xarit ñëw ci kër gi ñu mu di leen def noonu ba dàq leen kër gi kii moom lan moo ko tax a yaay nag yaa ngi koy tooñ yaa ba ñuy ñëw moom nekku fi woon nekku fi woon nekku fi woon de yaa ngi koy daal bu ñu waxee rek nga jël a koppar yow sa nijaay yi ngi fii ci kër gi kon lu leen dàq kër gi bi nga da ngaa dugg ñëw fekkoo leen fekk ñu daw ñu dem seen yoon moo leen dàq mais moom nekku fi woon yaay nekku fi woon de ah. Ndiaye xam naa la meloon nii xam naa la bu wér yow rek nga koy boo ñëwaat fii place bi day mel ni tànn biir. waaw mbëlu fuura. ku la jooy de moo xam la muy jooy waaye kuy moo xam la muy jooy. loolu ngay jooy bëgg nga mosal ma ci lu mu. man daal dem. waaw maa dem kër Kumba Seck. Hmm. ba ma yeggee wax ko sama situation ak kër ga la fa am ak ni mu demee. waaw ah, demate nga kër Kumba Seck ba ma fi. Kumba Seck jël pañe boo xam ne pañe ajaa la. waaw tubaarkalla huile d'ador ba lépp mu jox ma. ak meew vitale ba. waaw ah, loolu da ngay tiris ni ma jox joxal njaboot ja mandal bima wacce ma wàccee ba fa ma doon gungé nga jëri sa bagage sa sen ah waaw waaw fa la togon fañ taxawon di jël xaru tak fa la tek affaire ya di xaar du pou taxi nan ni du pou taxi man daal fa ma tok rek sa waa ji ñëw <laughs> lu kaptu jaan ba ki romboon fii ah. te fi di sen rek ma ba nga dëgg borom couleur yi ma xam ki ngay wax dik nangu lépp ma bu baax baax lu ko du dem du dem du dem ma day dem xol ni ma def moom baax waaye yow xaaral rek xool ah waaye yow mi gaañu nga di. waaye ci damaa mat mati lan muy yow kii mel ne xaju festelaan. kii de kon xaju festelaan. ma dina jasi ju xiif la. ñaay ma ne ko jërëjëf. ñaay waaw. ñaay waaw ñetti yoon de woon naa la. waaw ñaay nag daa am yoo xam ne am ngor da ko war a bañ. Ah. maa ngi remarqué di seetlu depuis bi ma ne la. damaa teg sama gët yi ci kumba sekk teg ci samam xel <laughs> samam xol mi mu koy rumbe ba léegi njaay yow lu ma wax ci kër kumba sekk da ngay fexe di ñaaware di yàq dara waa kër kumba sekk rek kumba sekk njabootam ñu baax lañu hmm. ñooñu famille bu baax lañ ci yàq wu rëy lañ bokk waaw ba tey man wax jooj yëpp du ci wax comme yow maanaam bu ñu tuddee sa jëkkër ji rek nga mel ni maa day taal dinaa leen woo ñu ñëw fii ci kër gi ñëw toog bu ko defee baax toog ñu toog ñëpp toog mu leer ràññ. waaw bu dee loolu moo la neex man histoire boobu bàyyi naa ko de bu dee da leen a bëgg invité invité leen ñu ñëw. wante sama lijaay moom defu si dara yaay bàyyi ko rek. Ah, yow lu ñu wax rek nga jiñ ko ko. yow sa nijaay bu rayoon nit sa nga ne rayu ko dañ ko koo tànqal sëy bi ngay sëy kenn sëyeetu ko sëyu dof bi ngay sëy nii benn jég sëyeetu ko bu ma xool ci fay bàyyi li ngay wax nii di jël waajal di ko bonal doo kooku du ko bon ko gisante naag moom fi bañ waxtaan lu yaa sama sëngi ci bësi da nga ma saam bës de bësi kan yow lu gëtu jaan bi lim ma def waaye ah, dara defuloo ah, waaw baax na dara defuloo mm, mm, baax na jaay yenn nit da ko war a baax am na loo xam boo ko sañoo sax war ko mën a bañal sa bopp ndax waa ji nit ku baax la ah <laughs> oh, baax la ndax ku ma sekk moom du ko bon doo ko xam nga ne sa ci kumba rek nga ne nga fexe fexe Ini niiral waay Ndiaye nit ku baax noonu lay def. sama sën gi ci bés ngeen bëggoon. ah borom boutique bi leen doon seet. maa ngi non du yow de du yow de borom rasta yi wax ku te mu te rasta rafet rek. Oh, ñii dëgg nañ fi du yow kay. borom rasta yi ko de. maa ngi nijaay maa moom bi dama ko fi bare rek. Ah. Ah. waaw mais waaw mais baax lu ngeen lu ngeen bëgg rek kay maa Mori benn la bu ngeen ma fa fekkee. ah jànk tey moom moom mooy tey dara du baax di. Ah, mooy que moom dañu daan dañu daan defal carnet bu ñu ñëwee di après weer bu deewee ñu jox ko. ci koor gi carnet bi lañu daan bind quoi. waaw waaw ci lañu daan bind man Bijou. Bijou yow. Sophie. Bijou ak Sophie. Bijou ak Sophie. baax na dinaa la xool ci carnet bi. Eh. waaye tey moom Mori néew fi ni yaa jee fi ne. Ah, tey Mori néew fi ah, ne <laughs> ñoo fi ne. waaw ñoo fi ne waaw ñoo fi ne kon. ñoo fi ne tey maa ngi sama jël bépp. waaw ñoo fi ne waaw kay dëgg barkalla ah wax yow Ndiaye moom ci ah. saa waay ah macha la. nan mhm. naa doon ndox. te moom sunu koor dog la moom. Ndiaye nag koor gi nag nag ba lu ko laal mu doon. Ah. ah koor gi du mayonnaise de. waaye Ndiaye gi xale yi. mu gis nga ko xees mel ni sokopee darab sokopee bi. mel ni yaram mi mel ni sokopee. vitale nag. yeewu Mate! jai gear VIP di merek, di merek, bay may da ngay mayloo moom maye produit yoo xamante ni adduna bi ñépp ko soxla famille ek, njaboot gek, ba ci célibataire sax dañ ko soxla xam nga ne Adja Margaret bii guubër nga bëgg koo maye noonu <laughs> vitale ay waaye stérilisé mayonnaise hehehe, <laughs> ko may woon rey ma bi way nga jël ci kàngu boobu naan may di jaay mbaa ko ma sekk sa bopp maama nga France jëmm jaa Burkina Faso man dafa yow sa maam ñaari dogo dogo dañ koo dogo dogo te xanaa boobu ne ba France niñ lay woyee baaxul de sensé sa chanson bi sa réputation dara baaxu ci Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah العالمين ah aja tombe nag mépp dag jot na dag jot cey <laughs> Koro waaju baax Sen j'adore Patisen ak Vitale Mai, don may Adja sama àndandoo bi ma wóolu neex sell te noppale dana ma jox cafka bi gën ci sama bépp xeetu toog fekk si ma ci Adja moom mi ëmb lépp luy safal togg jéegu jën bi jéeg ni yiir ne Adja ci man booy dooleel Adja ci man samari ne Adja ci man soro si aja ci man Adja safal lii meew ne woon naa leen dinaa leen jommal kenn par kenn nag waa Sénégal. dolli yow li ma la defal naa ne googu. Eh, dollil ko lii dafa baax ci yaxi xale dollil ko. xam nga ku la jommal. kii nga xam ni kër gu mu dugg ñaan fa jabar ñu may ko kii mooy lait stérilisé caramélisé. xaritu xale yaa ngi nii ak mag ñi biteel ba jekk na liggéey ba sell na neex na. am na fraise am na wane. li ñëpp doon xaar yegg si na. nee naa leen. Ah. dama ne lait stéralisé. caramélisé. waaw ah. ko.